donc voilà salaamaaleykum mbokk internet yu Sen Teranga TV di jégaluwaat baax a baax euh, jafe-jafe yi si man la du ci technicien bi la maa fàtte bés bouton bi mais di leen fàttali ni MC Mass la ñu dalal euh, prétexte bi nag mooy tey la fête de la musique euh, le 21 juin la plateau yu bëri dafay am ay concert yu bëri dañ koy faral di organiser ci réew mi tey ñu war a waxtaane tuuti ci musique mais waxtaan ci actualité bi également balaa ñuy sori nag quand dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog seen Teranga TV euh, ñu ñëw si waxtaan MC Mass ñu ngi lay nuyu la ziar gëj nga fi. waaw gëj naa woo nag <laughs> mais maa ngi lay dellu ziar di la bëggee di la jaajëfal di am mbégte kontante bu baax di nuyu ñi nga xam ñoo ñuy seetaan partout dans le monde di wax seen Teranga moom sama la. Mm-hmm. maa ngi leen di bëggee baax di leen jaajëfal di ñaan ci tabaski bi ñu jógee di ndokkale ñëpp di baalo àq ñëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def xéewal ak sutura. Mm-hmm. Sénégal naat jëm ca kanam ñëpp gis ci seen bopp. jaajëf ñëpp gis seen bopp wax naa ko sànq ni saan bi li ko sabab bokk na hmm. ci. fet de la musique bi alors tey fête de la musique bi mu bëri très souvent. boo euh, xoolee daaw fête de la musique sénégalais yi taluñu ko woon. ndax ñi moon hmm. ci mois de juin bi. Hmm. Euh, xët-xët yi euh, jàppal bàyyi am ren fête de la musique am concert yi ñu xalaat ni dina am fu nekk si Ndakaaru ak Sénégal ban gis-gis nga ci am. waaw loolu ñuy rafetlu la parce que fête de la musique bu ñu ko waxee musiciens yëpp ci war a gis seen bopp parce que dafa war a nekk loo xam gox bu ne war na ko mën a organiser surtout par maire bu nekk mm-hmm. mais ñun fu mel ni côté Parcelles Assainies dañu yaakaar ne ñun dañu respecté wul joxuñu ñu cër gis nañ chaque année dañ fay organiser ay ñaar la ñuy jël dugal fa ñi ci des ñu bàyyi leen ci parce que affaire de mafia la te loolu daf fi war a jug daf fi war a jeex gis nañ sunu maire bi Jabi Sané bi mu fi ñëwee première organisation bi mu defoon ci décembre ba le yeneen artistes la jëlee yeneen gox ñëw fay leen kas yi ñu ñëw jouer ñoon artistes yi nga xam ñoo dëkk Parcelles Assainies di fa yeewoo di fa xeex di def lu ne ndax Parcelles Assainies di voter ci Parcelles Assainies kenn jouer wu fi wala kenn gis sa bopp muy loo xam dañ koy ñaawlu te ñun concert bi li ñu décidé woon mooy dem yàqu ko. concert tey bi ñu war a. billaay loolu lañ woon. mais moo fay see. ay ñoom même bu fa nit def day jouer nit dof amul lu koy rapproché. Mhm. parce que mairie ci gox bi ci boppam warut a am ay artistes yu gox. booy dañoo am ay talent booy yoo xamante ni ñi ngi Parcelles Assainies war a wane seen bopp occasion yu mel nii da ciy baax nga may nga may leen occasion ñu mën a wane seen bopp mais da ngay gis Parcelles Assainies yi ak booy fa nekk dañ xalaat mënoo balaa ngay wax est-ce que doo jéem a laajte ndax sa booy yi dinañ joué ba pare. booy gisuguma kenn ku ci joué parce que ku mel ne ay ñoom Ibli Zia Zia ñi nga fa génne nañ album ay ñeneen ak ñeneen ñi nga fa génne nañ album. Hmm. ay euh, di xeex ndax Parcelles Assainies tey jii boo nga gis si pub yi ngay gis yëpp benn groupe nga fay gis mooy Alien Zig ak ak waaye euh, Akatsuki gisoo fa keneen. Hmm. te ñooñu kese nekkuñu Parcelles Assainies ñun ñaata at ñu ngi fi di xeex 2009 ba léegi ñu ngi ci aar bi. chaque fête de la musique noonu la dañuy xëy dem sélectionné ñi leen neex teg leen ci plateau yi jëm yéegal seen bi ñeneen ñu ñu bàyyi leen foofu te ñun ñu nekk ay doom Parcelles Assainies yàgg xeex ndax Parcelles Assainies te ci événement yi di am yëpp kenn ëpp lu wuñ ci xeex ñaata yoon lañ ci ma noppil ci affaire Sonko noppil ci aji affaire Adji Sarr dinañ la tëj ba fii nii ñëw naa fi wax naa fi fu ne feneen dem naa fa fu nekk taxaw naa fa xeex ndax sama réew mais amuñu benn respect ñun ci suñu gox Parcelles Assainies mm. chaque fois lu fay xew ak APS jox leen ay cachet joué loo leen mel ne ñun Arthur Racine ñoom li ñuy def dañ ko mënul wala ñun dañoo baaxul wala ñun dañoo ñàkk fayda te loolu dañ koy réclamer sunu maire nañu respecté mm. ndax moom même bu keneen organisé ah, war na ko imposé na ko carrément samay doomu Parcelles Assainies dañ ci war a joué mm. surtout événement boo xam RTS moo koy couvrir àdduna mm. ñu nekk ay doomu euh, Parcelles Assainies nekk ay artistes Parcelles Assainies ba pare kenn du fa joué ñu jël ay quelques nit ñi ñu teg leen ci banc loolu tegul dëgg waxtaan ak gars yi réunion bu concert bi commencé ñu tëmbal ay xeer yàq concert bi. ah bon billaahi wallaahi loolu jësi de woon. mais mais mais mais mais est-ce que du dëgg du yoon grand li li waroon def mooy woote réunion artistes yi toog. fête la musique day am Parcelles Assainies nii ak nag lañ koy organiser ah yéen ñëpp kat mënu leen bokk waaye dinañ jël jéggi waxtaane ko nit ñi quoi gars yi comprendre xam ni mu demee. parce que donte ñi fa nekk bëri na ñëpp mënuñu jouer. Mm-hmm. mais nga waxtaane nit te maire bi gis nga bële passé décembre bi bi muy organisé wowul benn artiste. dañoo jékki-jékki tànn ñi leen neex rek dem stade ba dem joué fa. Mm-hmm. man am na ko xam ci maire bi leen sama bi ma ko woowee dana ma noo garaawul. Mm-hmm. mais ñëwal nga joué da ma daa mën a xaaral ne participer rek en tant doomu Parcelles Assainies. ñu jël ñeneen di leen fay ay cachet te ñun ñu nekk Parcelles Assainies di fa participer dëkk fa yeewoo fa. te ñoom ku ci soxla fallu tey ci ñun ngay ah ba pare du ñu jox benn respect loolu moo dul dëgg du yoon parce que tey jii loolu lañ décidé woon mais ñu bari bi mu waxtaan dañ dama saawaay kon garaawul bàyyil mu sedd mais loolu lañ décidé woon tey jii tëmbal ay xeer yàq parce que loolu moo doon dëgg du yoon lu tolli fête de la musique waratul am parcelle wala ñu fay organiser di di di boycotté doomu parcelle doomu Parcelles Assainies te loolu daf fay jeex te insha allah dinañ ci réunion après dinañ ci taxaw loolu moom dina jeex Parcelles Assainies suñu maire suñu maire bi nag muy Jamil Sané maa ngi ko koy wax nañu respecté parce que lii même moom bu ko organisé wul. Mm-hmm. war na leen imposé ne leen doomu a a mm-hmm. parce que ba xeex jotee mam duggee ci kaso bi maintenant man kese nga gisoon may toog ci kira di ko kaasal naan Jamil dafa war a génn ci kaso bi a génn ci te man ma nekkoon doomu Parcelles Assainies di ko xeexal mais tey jii gis nga ko tey jii bu bu leneen amee ñu jëli yeneen artistes yeneen saayit dugal leen fa mel ni ñoom li ñuy def dañu dañ rab wala lan am na ci ñoo xam seen carrière ñoo leen dàq bind foog dàq leen rab gën leen a xam lu ñuy wax mais tey affaire yaa ma neex affaire lobby foog nga daw dafu ci benn grand nekk benn dunguru wala benn suq pour ñu jox wala pour ñu mën la may loxo nga génn soo ko dóorul doo dem fenn pour lan musique bi moo war a dépassé foofu moo war a boo gisee tey musique Sénégal déwul fenn loolu képp moo ko war a affaire de mafia ndaanaan yi ne ci suuf yow da nga da bëgg a wax ah, parce que euh, nga baal ma parce que gars yi bu ñu fekkee nit dof par exemple mooy tëj concert bi euh, bu fekkee également euh, da nga a wax ni bon RTS bu ko organisé directeur mooy Pape Alé Niang. waaw euh, da nga bëgg a wax dafa am lien wala rapport ak xeex ñi doon xeex ak yooyu nit dof. mais nit dof bi muy xeex ñu woon xeex dañ doon xeex comme ñëpp. Mhm. nit dof bi muy xeex taxul ngi doon xeex nit dof amul dara lu mu koy rapproché. loolu su may amee lu may rapproché suñu mairie laa koy rapproché. Mhm. parce que moom ci goxam lañ koy organiser parce que gis nañ mobilisation yi am yëpp yi gën a mag. biir Parcelles Assainies la amee. waaw Sonko Sonko euh, meeting yëpp yëngante yëpp. même bu Kër Massar bi bu Parcelles Assainies bee ko mën ñaari dañuy organiser Parcelles Assainies amul benn manifestation bu mel noonu biir biir Sénégal. Mm-hmm. terrain bu ñu waxee ñu ne terrain ACAPES kon ñun tey dañu war a jëmal dañu war a jox cër. xam ne ñun Parcelles Assainies du am lu ñu représenté ci dëkk bi. tey ji euh, bu fekkee ne tey ji ñun ñun dañ fa dëkk tey ji lu mu mën a doon war nañu mën a rendre compte même bu ñu jéewul sax ñu wax ak ñun ñu xam ne kat nii la mën a demee mais tas moom jëruñu fay egg moom parce que concert boo xamante ni nga moo tax lu ëpp tuuru hmm. ñun mënuñu dëkk Parcelles Assainies ñu ñuy boycotté di indi yeneen artiste di leen fay pour lan hmm. au nom de quoi pour lan te maire bi moo waroon bañ loolu parce que li fi wax sànq bi mu nekkee ci kaasa gis may toog ci wala da gis kenn ku taxaw naan gi ba ci moom nit dof moomu nga wax noonu mm. bi mu nekkee ci kaso bi man maa toogoon ci télé di kaas naan dafa war a génn muy moom muy Karim Xurum Xax ak keneen mm-hmm. naan dañoo war a génn ci kaso bi du yoon kon nit dof amul lu mu koy reproché moom li mu ci am kaay joué mu ñëw joué mm. suñu mairie bi moo waroon taxaw ne organisation bi comme Parcelles Assainies la amee damay samay doom dañ ciy joué te balaa samay doom di leen woo waxtaan ak ñoom ñu xool nan lañ koy organiser mm-hmm. mais mais tey loolu la lool ngeen décidé woon. si parce que xam am ñoo xam boo waxtaanee ñoom lu ñu lay wax mooy bàyyil mu sedd. Mm. garaawul parce que beneen yoon parce que dinañ ko wax nag dénoncé ko ba bañ jëg ko. Mm. ñoo xam li ñu def neexuñu te nañ koy waxaat encore une fois Jami nañu respecté. Mm-hmm. Jami Sané artiste de parcelle artiste ñoo xam ne ñun ay nit lañ duñu ay mm-hmm. jaam. Mm-hmm. bi mu nekkee ci kaso bi ñu ñoo doon taxaw di ko kaasal di ko xeexal. mobilisation yi am Parcelles Assainies yëpp da kon nag tey jii bu lii amee nañu respecté xam ne ñun Parcelles Assainies luñ dëkk waruñu jël yeneen artistes di leen indi Parcelles Assainies di leen fay ay cachet lii bu dakkul bu ëllëgee beneen yoon bu fa amatee concert dootu fa am te bii loolu lañ décidé woon mhm. dem tëmbal fa ay xeer yàq affaire bi ñëpp yam ci mhm. nañu respecté waaye mi ngi noonu euh, mbokk internet yu Sen Teranga TV di wax ni rek ñu ngi continuer li nga xamante ni moom mooy waxtaan ni MC euh, Mass alors euh, foog ma laaj la aussi li nga xamante ni moom mooy am jafe-jafe ci ci dëkk bi ndax xam nga ni dëkk bi jamono bi xaw na bëri ay xum ay mbir yu fi am. Mhm. Euh, camp pénal gis nga la coow la fa am. tey gis nañ inspecteur bi démbale génn wax démb mais balaa si euh, wax si démbale coow dèjà noo ko gisee. waaw coow li dëgg nga parce que nekk na lu doy waar. parce que tamit bu fekkee ne yow yàmbaa ma nga fay dugg. Mhm. téléphone di fa dugg. Mhm. paaka dafa dugg. kin jàpp tëj ko moom munu ko faa dugal kan moo ko fay dugal. te boo gisee am na benn détenu bi doon filmer mi ngi doon wax naan ko diw yow borom tànk yu dëng yi yow yaa fiy dugal yàmbaaji mm-hmm. kon tey ñoom balaa waajur yi wax di génne kon ñoom nañ ko tàmbale seen parce que ñoomu neen la mm-hmm. parce que bu fekkee tey dafa am ay pénitencier yoo xam dañ leen a ger ñoom mën nañ am ñoom mën naa am ñoom ñoo fay dugal téléphone yi dafa dugal yàmbaaj te gis nañ fa ay armes yoo xamante ni tey ñoom mënoon nañu gaañante sax seen biir parce que gis nañ ne foofu boo fay dugg même lancé sax boo ko takkee dañ koy tekk pour lancer sécurité pour nga bañ a xaru et mm-hmm. mais tey jii bu ñu demee ba gis na yàmbaam bi nga fay dugg ay paaka dafa dugg ay rab ay lu kenn xamul ba pare jël jë jël jël ay téléphones yoo xamante ni dañuy mën di filmer mm-hmm. lépp ñu koy mën di wane vraiment sécurité amatu fa kon jar na kaso bu ñu seetaat ko mhm. DG bu fekkee moom faay bi ci moom la mhm. nañ ko fa wàccee indi fa keneen su fekkee du ci moom na def enquête xam kan ak kan ci ñoom la ñuy ba téléphone yooyu mën fa dugg parce que détenu dugaluñ ko fa non dugaluñ ko fa waaw parce que ce euh, moo toll foofu dañu dem ba corrompre dafa yàq réew secteur bi loo bëgg léegi génneel xaalis. Mhm. xaalis moom soo ko génnee loo bëgg am ko. Mhm. te loolu moo war a jeex Sénégal parce que yaakaar naa bu dee dañ lay fay. Mhm. bu ne sama salaire baaxul moo tax ma war a nangu gerte bu sa salaire baaxul démissionnel nga seeti feneen. yàlla jeexul. mais fekkee ne yow tey ne sama salaire baaxul rek naan nangu gerte luñ ma jox naa ko jël parce que liñ may fay te yonent bi daana laahu la laahana laahu raasi war murtaasi yàlla rëbb na ki joxe gar ak ki koy nangu kon tey ji bu fekkee ne yow da nga nekk ci benn poste ñu lay liggéeyloo mhm. tey kii yor xaalisam nga xam ne amul droit yor téléphone nga ne ko boo ma joxee temps dinaa la wutal téléphone vraiment yaa ngi jalgati yoon mhm. te loolu boo ko lekkee baaxul il fallait que ñuy moytu yooyu te foofu vraiment lii nag wane nee na sécurité amu fa te war nañ ko defaraat mhm. parce que boo demee ba nekk benn prisonnier yor paaka wala jaas ci biir koo amal problème mën nga koo reyaat ci biir te tey ñu ci bëri en en général boo gisee ñu leen yóbbu kaso pour sécurité leen moo tax. pour biti si ñekkawul ci biti dootuñ ko defaat ak yooyu mais nag il est temps ñu jug la ñuy ger ba ñu fay dugal yàmba ak ay paaka ak ay téléphone mm-hmm. Mm-hmm. su ko defee lépp daal di nekk ci ci ci jàmm. Mm-hmm. waaw mais nag duñ leen visiter ak loolu moom du dëgg yoon parce que ku fa am mbokk war nga mën a dem seeti sa mbokk comme nag dañu tëj pour l'instant. pour def enquête nañ def enquête ñu xool faay bi fan la ne fan la waaye waaye doy na doy na waar euh, mais mënuñu ñu continuer waxtaan bi également te waxuñu nga xamante ni moom mooy bon wax grâce présidentielle président mhm. euh, Diomaye Faye li mu ci bàyyi ñenn ñi ne dafa tuuti dafa tuuti 376 euh, personnes loolu noo ko gisee nombre bi ah ñu ne dafa tuuti nag parce que dompat sax ci sot la bokk mhm. comme def na effort ba génne lu mel noonu daal vraiment man du ma def lu dul rafetlu ko mhm. bu ko dolli waatoon tamit mu gën waaye daal comme def na effort ba def na rek baax na moom ay dafa tuuteeg dafa nangam sangam parce am na ñoo xam kenn waru leen gracier mhm. parce am na ñoo xam moom mën nañ leen gracier mais am ñoo xam kenn waru leen gracier mhm. raykatu nit yeeg defkatu ñaawte fi moom ñooñu moom dañ leen fa war a bàyyi ñu toog fa mais ñi nga xamante ay erreur yu ndaw ñoo leen fa mhm. dugal ñooñu war leen mën a bàyyi te gis nañ koo xamante biñ ko euh, euh, euh, gracier yàggul dara dafa gënaat rayaat nit delluwaat fa xam nga ne ko kon doonul woon il faut que tamit nag euh, président kon mi ngi góorgóorlu mhm. génnale lu mag trois cent nangam personnes mhm. vraiment loolu dañ koy rafetlu mhm. te di ñaan tamit xale yi ñu jéem a yaraat seen bopp jéem a góorgóorlu te xam ne àdduna jeexul nit dara jërul yàkkamti jël alalu jàmbul agressé jaay yàmbaa jaay drogue amul njariñ amul solo il fallait que ñu bàyyi ko jéem a góorgóorlu jéem a jub jubante donte nag doomu aadama matul te kaso ku def dara dana fa dugg ku deful dara dana fa dugg parce que ay la yoo xamante ni yàlla moo ñu ko bindee Mm-hmm. xalax commune Dufine moo ñu bind ci ak matadi il fallait que nag léegi boo fa duggee jéem a rectifier sa bopp jéem a góorgóorlu ah man ka lii taxoon mu dugg fa doot mu fa dugaat suba ñu génnaat suba ñu dugaat da dem ba nit ñi dañ lay mujjee jéppi grâce présidentielle bu amee sax dootuñ la grâce dañ naan kii ko fa bàyyi mu toog fa <laughs> kon nag il est booy tamit xoolaat seen bopp jéem a góorgóorlu xam nga dimbale seen waajur yeeg seen seen papa yi parce que kon boo defee erreur ba dugg fa boo génnee lii laay war soli na nga sa bopp yaraat sa bopp ne ah lii kat moo taxoon mu fay dugg kon doo naa ko góorgóorlu ba dootuma ko defati pour ëllëgee nga mën a dimbale say waajo ba yow dootoo fa mën a dellu mm-hmm. parce que kaso du dara jombut kenn kaso jombut kenn jombut kenn natt loo suñ borom buy teg doomu aadama rek mm-hmm. mais ku fa natt bu dugal tamit bu génnee ngir yàlla nga bañ cee delluwaat waaw ah, di ñaanal ñoom ñëpp nekk ñëpp ñaanal ñu delluwaat ci seen waajur ba kenn ku nekk la la fa dugaloon suñu borom musal la ci boroo ca delluwaat. Mm-hmm. Euh, bon li ba léegi ci wàllu li nga xamante ne actualité actualité mm-hmm. euh, na sax ba dem Rwanda mais France bi euh, voyage bi. bon j'allais pas discours bi ba ci tenue bi ak soxna seeg yëpp comportement bi noo gisee. waaw di ko rafetlu parce que dañuy wane ne ñu ngi doog a am président. man xam nga bi ñu amee président bu am ñaari jabar ci laay doog gëm ne ñun am nañ président ndax président yi fi nekkoon yëpp benn jabar lañ am te benn jabar moom boo mooy koo xam dalay manipuler ah déet waay. si. ah mais yow ñu yor benn jabar ancien président fi jóge déggoo déggoo benn jabar la ancien jabar ancien ministre bi fi ancien ancien président bi fi jóge déggoo benn ministre taxaw fii ne jabaram maa ngi ko sant bu gërëm moo naan ko falal diw mu fal diw mu ko mu folli ko mm. kon <laughs> kon kay da lay war a bu demee amul fitu takk ñaareel kooku wartuñ waruñ ko jox mu diriger réew li président am ñaari jabar kooku dafa décider pour yor réew kooku man jàpp war na mën a yor réew parce que kooku du ay soxnaam ñoo koy wax li mu war a def ak warul def mais góor boo xam benn jabar képp nga yor mhm. boo ko ne projet gi ni sax mu la xaaral ma waxtaan ceeg madam kànjam fi mu la xaaral ma waxtaan ceeg madam kooku nu mu diriger am réew loolu taxoon réew mi dara dagu ci mais min demee man ba ma am président boo xam ne am na ñaari soxna ci la sama xel dale ni kii góor gu am fulla la ku am fayda doonoon ko jigéen di manipuler wala ku joxam jigéen da koy jaarloo fii wala fee mhm. deuxièmement dem na tenue africain bi mu sol c'est normal parce que loolu suñu téyeer yi da leen di jaay ñoom il fallait que suñu président yi di ko sol bàyyi complexe bi sol ay costume xoj seen bopp bu duñ mën a noyyi suñu artistes yi fi nekk muy téyeer yi dañuy ñaw lu rafet il fallait que président yi di leen dimbale di ko sol di jaay suñu tenue bi ba partout dans le monde mm-hmm. ni sénégalais di wëlbati ko di sol costume tubaab yi ko di sol xaftaan mm-hmm. aujourd'hui viendra ñu gis Macron mm-hmm. ñu xam ne li ngay jaay moo c'est normal mu sol ay yére olof dem ci biir tubaab bi wane ne man lii mooy sama culture mhm. bu ko defee day dimbali suñu téer ñu mhm. dindi mais ku ciy ci tubaab bi ku ci sol costume ak cravate yaakaar ne mhm. la ko làkk loolu ça n'a rien à voir ak mu def ak li jabar def vraiment dañ koy que ñi ngi jaay suñu tenue ñi ngi jaay suñu culture dina tax tubaab bi dem ba léegi dinañ mën a sol ci suñu xaftaane ak suñu robb yi nga xam suñu téer ñoo koy ñëw gën a valoriser li nga xamante ni suñu téere yi ñoo def parce que loolu c'est très important mhm. parce que waruñu yem ci seen costume yeeg seen cravate yi kese nit ñuy jaayee seen chemise yeeg seen tiset yeeg seen jean yeeg yooyu ñun nañ fexe bu góorgóorlu tamit jaalee suñu xaftaan yeeg suñu caay yeeg suñu robb yeeg suñu marinière yi mhm. ak tay baas yi ak tay baas yi mais xanaa nag euh, dinañ waxtaane forcément euh, discours yi nga xamante ni moo fi jot jàll keroog si euh, xamante ni moom mooy moom mooy julli tabaski bi Masaalikul Jinaan ak grande mosquée grande mhm. mosquée imam ba na moom discours ba mu jël ni ko seete nga ñëpp te seetee wala lébu yi ñun dañu am suñu gouvernement bopp ak yooyu ak sax ba fiy tudd ay mairie plateau beeg yow yow ko baax nga ak ah, kii ah, kii moo xaalis beeg yooyu <laughs> noo ko gisee. waaw imaam bi chaque jour ay erreur lay def. <laughs> nga ne billaay toujours discours am ay erreur vraiment communauté lébu comme ñoom dañuy jumaa ji ku lébu du fa jiite. Mhm. war nañoo waxtaan ak moom wala bu fekkee mën nañ ko fa jëlee wala ñu indi fa keneen wala balaa muy def discours ñu bindal ko ne ko tàmbalee fii yamal fii parce que mënuñu d'accord chaque fois bu defee discours rek def erreur. Mhm. ci erreur communication yoo xam tegu ko fenn parce que te lébu ku leen xam-xam ne famille bu baax lañ ñu yaatu lañ lébu rek ngay ñëw ci moom ak xeet boo mën a doon boo ñëwee boo ñaanee soxna ñu may la mm-hmm. ba pare jox la kër wala ñu jox la néeg ne la dëkkal fii boola laak sa soxna yor lébu rek ko mën kon loolu tey lébu yi dañoo nekk ay famille te bu muy wax day mel ni day bëgg a jaxase sénégalais yi ak lébu yi mm-hmm. ñun famille lébu yi sama jumaa ji jumaa ji foo ko moomee waa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan jumaa jumaa yàlla kon waroo fa prononcé baatu sama jumaa ak sunu jumaa jumaa ji tey jii moom bu xamal lan moo ko fondé ci communauté yi nga xam ñoo nekk sénégalais murit ak tijaan ak xaadir ku ci nekk yëkkati nga sa alal participer ci mhm. donte Maroc moo ñu ko moo ñu ko def mais ñëpp ci dugaleen seen alal mhm. kon yow bu ñu la fa tegalee tey nga war a jiite askan wi waroo fa faa weesu loolu xaala laaw xaala rasul mhm. lii la yàlla wax lii la yonent bi wax te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci addis na man kaana yuminu billahi wal yawmal axira fal yàqul xayran aw li yasmut ku gëm yàlla gëm bis penc na ngay wax aw yiw wala nga noppi te gis nañ à chaque fois su waxee day blessé baaxul parce que li muy jéem a ñodde ay man libu laag yooyu loolu amul Sénégal ñun ñëpp benn lañ ay doomu aadama lañ Sénégal ñëpp a bëgg ñëpp a far hmm. amul kii pël la kii njaagalo kii joolaan ko seet dañu bëggante suñu biir di taxante di mayete njabat dëkk dëkk en même temps di demalante yoof gi dëkku lébu la mais est ce que a ngi fa hmm. boo a dañoo jaxasoo parce que lébu hmm. dañoo yaatu dañoo yaatal seen mbir te na bàyyi genre discours yooyu beneen bi gisoon nañ ko fi mu doon wax Macky naan ko defal wax waxet wax waxet dara nekku ci pourtant wax waxet bi ko fi Ablaye nga gis li olof naan wax wax buy taal daay kenn du ko wax ci penc wax buy këpp ko wax ci tefes hmm. te chaque jour dañuy gis ne genre discours yooyu lay tenir en tant que imam mu seetaat communication bu fekkee dafa màgget wala dafa naax wala xel mi moo dem ñu ko wër nañ xoolaat beneen imam est-ce que nekkul dafa am franc dafa am franc parce que waxu intérêt rek joxo góoñoog ay suukaru koor ak genre yooyu lay laaj te loolu du waxu minbar bi minbar bi boo fa taxawee xaala laa xaar rasul Basiru Jomaay Fay dafa ñëw ci jumaa julli si na am nga loo koy wax defal sa discours boo paree nga téye ci loxo bi wax li nga ko bëgg wax mu dégg ko nga wax ko à l'amiable jërul nga koy wax publiquement ñëpp di ko dégg parce que tey boo gisee nit ñi di ko tiktok ñii di ko saaga man du ko saaga du ko xas mais dama koy laabiré en tant que kilifa parce que lu mu mel ne kilifa la mais dafa juum te dafa bëri lu muy juum te erreur yooyu waru ci dëgg en tant que imam du kese moo fi imam ñaata imam a fi dëkk mais imam yëpp boo leen ay suukaru koor ak jox ñu léegi jox ñu laa te loolu baaxul ci am réew baaxul ci am réew te bu fekkee yow da ngaa nekk ab imaam nga jàng yamal ci xaala laaw xaala mm-hmm. te bañ a parparloo gisoon nañ ko fii mu taxaw fii naan wala marché bi waaw nañ ko yamale na jële amelan yi te yow fi ngay waxee too tey euh, grande mosquée yaa ngi fa dagg ay place lu yëpp mm-hmm. yoo ci jumaa ji la bokk mm-hmm. pourtant place yooyu fu mu nekk mënoon nañ ko def ay place téere wala ay barabu jàngalekaay teg fa ay nit ñu fay jàngale alxuraan mais dañ koo dagg ay place luye ko xaalis boobu tey fan lay dugg mhm. jot nañ ñu leeral ko sénégalais ndax jumaa kenn war ci dagg place loolu du dëgg du yoon gis nañ léegi nag bëri na sénégal trop jumaa joo ci gis léegi wala jàq boo gis gaa yaa ngi ko loolu yéen tamit dakaa tere du dëgg du mhm. waaw léegi nag benn bi ci des mooy li ma ciy doole moom en tant que imam ñu ngi koy ñaan li laay warusul ko wër ndax ku mel ni tey euh, imam Maodo Sylla yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ak àjjana mhm. borom ama baxada fa yaa ibaadallah ñu ngi leen di dénk topp yàlla ak ragal yàlla chaque jour boo daan dégg imaam Maodo Sylla loolu nga daan dégg moo tax grande mosquée jooy na imaam tey kon tey bu ñu ba am imaam bu mel nii koo xam chaque jour day wax ci politique ba pare da ciy far ba pare chaque jour buy wax interpersonnel lay jiital te yaakaar naa loolu tegu ko fa am askan ñoo ko fa teg pour mu yee nit ñi di leen yeddi nit ñi di leen wax xaala laa xaar rasul lii la yàlla wax lii la yonent bi wax foofu la ñuy xaar ab imam mais xaaruñ ko ci muy attaqué defal léeg defal laa di ko wax publiquement loo xamante ni bu ko defee tey musiba am ak hmm. ay bul yërëm kii ak bul yërëm kaa te yenn bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ak jamaatu rahma su ngeen boole yàlla def yërmande seen biir mhm. yàlla yàlla lu mu ko wax ma arsalnaaka ilaa rahmatil lil aalamiin dama la yónni pour nga yërëm bi yow nga taxaw ko président war koo li ngay def dëgg du yoon tegoo ko fenn nga taxaw naan ko amul yërëm bul yërëm kenn toujours ay discours yoo xamante ne vraiment da ci def ay erreurs yoo xam kenn du ko rafetlu ba boo gisee booy ku nekk ak na koy gisee ku nekk ak na nga koy waxee vraiment daal ñu ngi koy ñaan yàlla waaw mu daal bu ci aajo daal ñi nga xamante ni ñoo ko wër nañ ko woo ci ruq waxtaan moom réunion moom jar na tey bu waratee def discours ñu bindal ko ko ne ko ngay tàmbalee fii ngay yem bu ko paase mhm. waaw bu ko defee wax na ci attaqué na Ousmane Sonko ñenn ñi divorce léegi finalement am na ci diggante Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany léegi Bougane daal lem-lem non Bougane c'est euh, man ci benn côté dama ko naw muy côté positif dafa am côté négatif bu dee ci côté administration wala ci côté maanaam li nga xamante ni mooy entreprise yooyu teg liggéeykat la jàmbaar la parce que lu man di doon teg na fi ay entreprise mu ngi participer ci réew mi di liggéeyloo ay sénégalais di leen fay kon jàpp naa bu sénégalais yu bëri meloon ni moom tey chômeur dina wàññeeku ci ci ci dëkk bi mhm. mais ci côté politique boo xoolee da nga naan Bougane mënul politique wala soit day def ay erreur de communication yoo xamante ni waroon na ko waroon na ko mën a bañ a a dal hmm. beneen bi ci des mooy première erreur bi nga xam fi la ko sénégalais yi njëkk a weddee mooy fi mu ne euh, bokk naa Yewwi Askan Wi ñu dem ba ci biir mu ne génn naa ñu ne ko lan moo tax nga génn mu ne couleur parti bu moomu neexul hmm. dèjà loolu du raison hmm. waaw génn naa Yewwi Askan Wi lan moo tax nga génn couleur bi moomu neexul parce que vraiment loolu. du raison parce que tey jii nekkul woon rek couleur bi ah. boo gisee tey lu ko bëri lu ko yàqal tey yow askan waru fa woon génn. parce que tey bu fa bokkoon tey jii maire mu Sacré-Cœur tey jii moom mooy nekk maire bi parce que boobu Barthélémy Dias mi ngi dem di xëccoo Dakar mais dafa dem génn. dem mm-hmm. créer coalition. te ña àndaloon mooy ña xam ña naan gagné seen gox. Mm-hmm. kon ñooñu ñoo gagné seen gox. boo xoolee Bougane individuellement fan mooy base politique am xamoo ko mais politicien ak nu mu di demee da am base politique fii mooy sama base même boo ko dul gagné fa samp ñu xam ne fii mooy sa base yow ku ñëw fekk la fa ku dem bàyyi la fa mais dañu gis ne moom erreur yi muy def à chaque fois ci communication loolu loolu baaxul da koy yàqal deuxièmement nekk na fi euh, nit koo xamante ni euh, euh, maa ngi ko dégg mun naan nekk nekk sàcc moom gënal nekk fenkat wax yooyu yëpp yaakaar naa amul woon sens mm-hmm. jërul woon Mm-hmm. nit nga am nga droit kaas ci sa gis li la naqari nga wax ko li la neex nga nga wax ko mm-hmm. parce que nit nga am loolu moom démocratie moo ko may mm-hmm. mais dama am wax yoo xam xamante ni surtout ay jouru tabaski ñu war a baalante ak am na wax yoo xam jërul wax parce que amu fa sens li war a def mooy xoolaat toogaayam parce que tey dem nañ ba élection yi tey nanguut a jël ay responsabilités tey ku mel ni Guèye gis nga ko ci moom la nekkoon après élection yi dafa démissionné parce que li mu def erreur mënu ko passé élection am premier tour nga xaar ba deuxième tour ñëw te daf toogoon na ci benn télé wal fajiri ne man su élection amee su su Sonko amee candidat man moom laay jàppale mhm. Sonko am na candidat nga ne doo ko jàppale da ngay xaar deuxième tour élection yi jeex na premier tour mhm. parce que loolu tam erreur la lu mënoon a xew ak lu mën a métti métti dafa waroon a ànd ak Amadou Ba wala ma ànd ak euh, Sonko mhm. ku muy àndal gañe ànd ak yow gañe àndal yow daanu ñu ànd mu ànd ak yow daanu ñu xam ne kii tey jël na responsabilité mais li mooy wane ne tey même bu deuxième tour amoon comme lii mooy wane ne bu deuxième tour amoon. kum àndal tamit mun la apporter dara. parce que nit ñi xaaruñu ko ku nekk da am sa décision. Mhm. parce que man tey jii bu ma ànd ak leader leader ban lay appel appel lii damay dem xool keneen ma votal ko Sénégalais foofu lañ tolloon parce que dañu soxla woon changement. Mhm. mais tey ku amoon lecture politique am benn euh, bachira ci ci arab ñu koy waxee am benn gis-gis. Mhm. xamoon nga ne élection yi premier tour lay jeex. toogoon naa fii waxoon naa leen naa ne sëñ bi li ci terrain bi kay ñun ñoo ngi ci terrain bi li ne fànn kenn du ji ko jeex da ngay gis ko xam ne danaa la man APR laa bokk waaye du ma votel amul d'accord mais avenir Bougane moom mooy le nouveau moom Bass moom euh, moom Diomaye moom euh, Bougane noo yooyu wax yooyu nit di wax non ni mu koy defee di moom bu dee nii la ko nar a defee moom ma xam ne Diomaye amagul opposant moom mm. waaw bu dee nii la bëgg communiquer Diomaye amagul opposant te et dafa teel lu mu dee dee mënoon a toog benn un an wala benn six mois ñu naan bugaan lu tax waxul bugaan dina waxul parce que rek nopp rek arme la. law kaana kalaama fiddan waaye law kaana sumta saaban dañ la wax bu doon xaalis noppi mooy wurus. Mhm. day am moment xam boo fa tollee noppi mooy gën. parce que kii tey mënoo ko critiquer nit ñi dañ lay mujjee jépp dañ lay bañ dañ naan da soof parce que nit ñi ñoo choisir jomaay te bëgg nañ ko bëgg goo xam ne en ce moment boo ko attaqué rek ñi dañ lay weddi. Mhm. li mu def mooy noppi bàyyi ay nitam ñuy wax. d'accord waaw ñu naan bugaan fu mu nekk bugaan lu ko teree wax loolu dina ko mayaat bés boo xam ne bu génnee wax rek day saf ñëpp hmm. mais dañu gis ne chaque jour mi génne di attaqué di attaqué lii muy def du ko may dara hmm, du ko may dara non du da koy yàq rek day tax nit ñi gën ko bañ nit ñi gën ko jëpp démocratie moo li ma la wax démocratie maye na ko mais moom dafa doon am beneen stratégie politique parce que ci li mu jógee moo tax dem na élection locale ñëw na député yi gars yi boole ko ko xaw ma soit euh, amul député deux ah, amul woon parrainage mu ñëw présidentiel amul parrainage ne waroon na ñëw gis que tey ku mel ni ñoom Abdourahmane Diouf mhm. ku mel ni Ablaye Wade mhm. lu mu wax damay ànd ak jomaay sans condition mhm. tey loolu permettre na ko tey mu nekk ministre bugaan tey mbir mi da ci waroon taqrib mais warul woon toog nekk kuy seetaan parce que lu ko waaye mën di wax tamit leader la jàmbaar la bañkat la xeexkat la loolu dinañ ko nangul mais stratégie bi muy doxee baaxul ci moom te du ko indil dara wallaay asi maa la ko wax fii bindal billaay bu ko sensible doo am dara ci politique mhm. parce que nit ñi dañ koy jéppi nit ñi dañoo fal jomaay am ci moom yaakaar te gis nañ mi ngi teg ay pas xam ne yaa ngi dégg. Hmm. tegaat yeneen stratégie jéem a bindaat. beneen programme xool nan lay taxawee ba nga xamante ni bu élection ñëwee. su génnee wax rek dina saf nit ñi nit ñi dinañ ko bëgg parce que nit ñi day ko nam. Hmm. parce que nit ñi boo bëree seen kanam rek bu yàggee da leen soof te dañ lay jéppi. Hmm. moo tax nit des fois da war a raar da war a làqatu da war a nëbbatu. mais li ñaan lu ëpp tuur bu yàggee da lay soof nit ñi dañ lay jéppi. loolu bokk na tey ci ci li koy yàqal quoi. Mhm. bokk na ci li koy li koy yàqal euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtaan bi moom xam naa c'était intéressant mais et li ci ëpp solo dëgg dëgg mooy affaire bu fête de la musique bi te xam naa ni wax nga ci sa gis-gis cri de cœur bi def nga ko donc euh, bu amee loo ci dolli rek. waaw fête de la musique bi di ko ñaan rek euh, surtout ministre de la culture ne gertuwaat artistes yi. Mhm. booy am nañ talent mën nañ rap mën nañ musique mais yëpp te ñu bàyyi affaire de hypocrite bi ci côté animateur yi. ci côté maanaam producteur yooyu yëpp def ci bari tey affaire da naa feq affaire da tappale tey kii sama booy la xaaral ma may ko loxo kii du sama booy xaaral ma xeexu te man li ñu def mënu ko man aw ma jot topp ci ginnaaw kenn di darte darte aw ma jot bi sax man damay liggéey. Mm-hmm. musique jëlu ma ko rek def ko suma métier dama am yeneen métier avant musique musique passion la mission la ci man boo xamante ni dafa am lu ma suñu borom dénk muy kàddu mm-hmm. te kàddu gi li ma message bi ma war a jox askan wi gëm naa ne man à travers de laa koy joxe askan wala à travers de plateau yi ngeen may invité. Mm-hmm. kon man musique tooguma tey di ci xaar ci sama gagne-pain mm-hmm. sama gagne-pain gëm naa ne mën naa ko am te mën naa ko liggéey sama bopp mais nañ joxat cëri te xam ne bu fekk de la musique sénégalais ñoo ko bokk te beneen bi ci des mooy animateur ñu bàyyi seen affaire naafiq yi ñuy def mm. di favoriser ay rapport di daw di topp seen ginnaaw parce que loolu mooy yàq game bi tax na kenn xamatul kii mooy kan te tey rab amatul Sénégal amatul benn message buy jëriñ Sénégal ay wax yu ñàkk fayda rek ngay dégg tey ci rab bi mm. kan moo fi benn message bu jëriñ askan bi tey rab lu ñu ko mosoon xam muy musique boo xam alxuraan la doon doon mën musique boo xam sunna la doon doon mm. musique jii ku ko dégg di nga ci jariñu mais tey fi rab bi toll tey ban rapport nga fi sama gel bi sama xarit bi raay ma fóon ma waxu ñàkk fayda képp te rappeur moo nekk koo xam su doon waxta ji nit ñi dañ koy dégg mm-hmm. rappeur léegi danga gis ñoo ne la accam na jàll mm-hmm. parce que léegi xaalis dañuy wut waxatu askan bi wi di sonn doo leen gis askan wi souffrir doo leen gis di wut weccet ci ñoom chaque semaine nga génne clip bu bees dugal ko un mois ba dee nga génnewaat beneen di wut xaalis ci kaw askan wi nañ delloowaat mbattu ca ndaala li taxoon rab jug nañ ko fa delloowaat di wax askan wi dëgg di leen waxal di leen kaasal pour askan wi mën a jariñu mm-hmm. maa ngi lay bu baax di am contenté bu baax di wax nag li xew Parcelles Assainies ñaawlu naa ko trop te dama koy waxaat monsieur Jamil Sané mais affaire dof nday bi foog ñu wax si ah waaw euh, dof nday bi nga xamante ni voilà jamono bi ñu ngi ni police mu ngi koy wër ñu ni waaye parce que dafa ko tuumaale dafa oto mu koy jam-jam yi metti ba dans le coma jamono bi loo gisee mbiri dof nday waaw loolu li ma ciy wax bëriwul comme vidéo bi am na mhm. yoone ngi fi na yoon def liggéeyam rek jeex na mhm. mais attitude am attitude am comportement am mais bu bu dee bu dee moom la moom loolu na ko changé parce que loolu baaxul surtout nan la nit di xoolee doomu aadama comme yow di ko jam daal vraiment affaire ça fait mal daal affaire bu ma touché la te man yaakaar naa nit daal wurta am xol boobu quoi ak lu la man di def mhm. rawatina oto nga xam ne yaa ko am yaa ko war a mën a defar yaa ko war a mën a jënd mhm. jarul rey nit jarul gaañ nit quoi waaw loolu daal vraiment na ko moytu quoi parce que bu fekkee yow da ne artiste nga da ñëw pour yeete pour yeddaate da war a joxe bon exemple boo xam ku la gis dala war a naw ci sa comportement mm-hmm. ak ci say wax pour man cee jariñu ndax suñ borom dana ataamuroon a naasa bil biir wa tansoona anfusukum balaa ngay jubbanti kenn yow na jub ba pare mm-hmm. parce que ku yarwul mënoo yar kenn waaw loolu mooy wax ji mm-hmm. kon nag tey ji <laughs> waaw kontaan nañ ah, mais mais jaar na fi sa kër la nag gain ah. non saa yoo mooy ma ñëw moom. ah allah <laughs> saa yoo <laughs> mooy ah mënu maa xëy rek ñëw toog ci baat dara ma nga dëgg de ah waaw <laughs> kër goo gis day am pour toi. Ah. Ah, waaw waaw incha allah mais kontaan nañ quand même très euh, MC Mass euh, maa ko bind maa ko Mass. n'est-ce pas waaw tey fête de ah, na te lu nekk man bu ma joué sax garaaw luñ joué booy mais nii dafa ñaaw te dafa war a jeex Parcelles uh-huh. te buñ moytuwul ba xeeri jug foofu concert bu du fi am <laughs> d'accord merci beaucoup Sène jaajëf jërëjëf jëwrin